li ñu am lépp tawfeex sëriñ bi moo la ko may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. bi la baal biddiw yi di way garab yi meññet mi neex sap sap yàlla bi sa boor waa Muhammad Muhammad Muhammad jant bi sabal fi diw yi di way garab yi meññet bi neex sax sax fi yàlla sabal fi diw dina Muhammad sab sab yàlla yari sikka jant bi sabal yi di way rabbi meññal mi la sa sap yàlla di sabab man mustawaati mm, molon hoppa boobu hoppa ba tey gëtëg biski gaa nga fay xeeñ baate Allah amaloon boppam ba boppam ba tey gët gët ma fekkee atum juddoo ba lu juddu yu góor jigéen judduwul jamoo ba ay nga magal góor ga yàlla Muhammad atam juddu om juddu góor jigéen judduwul jamaa ba nga pagal góor ke Allah atum juddu om ba Jangan sawa amamu Madak waa mal fili yàlla جن سوا أمامي ركبنا من في الله ay ama amra aday aganya yam yadiwa girma bi gamba tara abna asiyala taganya yam yam yadiwa batara abna abdi moy atma amra aday taganya yam yadiwa girma bi gamba قراءة الأشياء قال الملائكة من يوم بدا هنا بدر المختار يا الله الرحمن كانت ملائكة من يوم بدا نبتني بالمقدر يا الله الرحمن اليوم بدا قرنا خالت ملائكة من يوم بدا ما بدربي للمختار يا الله ñetti weer la taxaw ànd ak xale la di dox juróomi weer la dër mat sëkk yàlla la taxaw dox jurmi weer lab di mag guddisam wa di mag weer ci doomu arab ram di am at at ma dimlim fa yàlla wa di mag weer Mustafa weeram di am at yan raka lamaan ما بدال من سوء أن تخي الله لما بدال من سوء تمنى ما بدال من سوء أن تخي الله ما بدار من سوار جن وقت تمنا ما بدار من سوار أن دخيالا بجاهد من رسول Mustafa lompo ñul la fa ñuul معك اليوم قد نمت بالديار رقبت يا أبوك يا ريال قد نمت رقم رخصكو خادمكو خادمكو tabbe ko xabaatima bi samwatu junni malaika fi diwaati yàlla mbooloo mi yonent bi bàngo maase leen ñu taxaw ca kaw màgga Seydina Muhammad ku jóg màgga yonent bi yàlla nga tàggoog bàkkaar lu leen màgga bi jar na bi xaatim ko tampe ko fa junni malaika yàlla xaatim ko kambe ko fa baatin ba peesa mu wat junni malaayika junni malaayika mi xaati yàlla seydina muhammad sa daraja raw na leen junni malaayika mi xaati yàlla Seydina Muhammad sa daraja raw na leen junni malaayika kati yàlla mu sama raw nga leen nga leen junni malaayika kati yàlla Seydina Muhammad sa daraja raw na leen junni malaayika kati yàlla saraaraw nga leen di malaayika nga di yàlla xayral wara te daraja ëpp na leen junni malaayika nga di yàlla saraaraw nga leen junni malaayika nga di yàlla Mustafa juddi malaayika ati Yàlla Mustafa raw Mustafa abu jaleel junni malaa'ika waati Allah xayral wara sa daraja ëpp na leen junni malaa'ika waati Allah sidina Muhammad sa daraja raw na leen junni malaa'ika waati Allah musawa raw na leen laay way mbir wala fan yéen jaay la xam max naa yàlla mawli ya jaay ya salaay way mbiram wala fal ndax yéen jaay la xam max naa yàlla mawlid ya gaaya salaay way mbiram wala fal ndax yenn jaay la xam naa yalaahu sayyiduna Muhammad wala fi ñu màggal sayyiduna ndax ñu sawar ndax yàlla fu ñu tollu naa yàlla ku yàlla manoon na maa way yaaram waaye kon ku xamul xam ci lu tax tagg yeneen warnu yàlla sayyidina xam yàlla xam fam teg ba war na ku ne ku leen xamul yàlla bun xam kooko yàlla danaa fi wey turi maamam ma xaarixim ahmadi saade mu daa def booba yàllaaw min fay di bahril manaawi yaa nadimu lanaa xaraftu سن اسمه في المنصور الله والمولد الدر والبرهي يلاج كواي بولين مناوي والبرسن الله غير امنا اي قصه ينيو في تفاد فنيو moo tax ma boolaati seen mawlid yi yàllaaw sayyiduna muhammad waatina dariix al mustawa karaman daaran biar fin sasin minka yàllaaw wasalliyanna bi taslimin alayhi bihi وربي روحه ربي ريحاني الله سيدنا محمد جسمي مجل سيدنا محمد محمد خير خلق الله ذي أبد يلا وصل عليك يخشى الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرى من الاسمان الله قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماع محل املاك الله ولا جنان ولا نار الجحيم ولا حرس فرس محل أنار الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا سحاب محل أمتار الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح جرت في سهري الله ولا داب ولا إنس ولا ملك والجن والوحس والأحجار يا الله فكل من نوره رحمن أوجده لولاه ما كانت الأفاق يا الله

يا ميجتنا أسقيتنا ومن عيون منك يا الله يا خادم المصطفى لا تنسى جاي بدر كفت ساب يا سي وي كردي الله بسم الله تبارك رميم بسم الله تبارك ترمي مي بغلم لا ينعن بامبا mu des ma jant yàllaaw déglul ma wax la ñoo toppoon mu sawaa ca badar ñoo maandu ñoo gore ñoo jàmbaare yàllaaw ñoo sopp njool màkka ñoo gëm yàlla am jërëjëf ñoo xàlle diina ji suul kee fër gi yàllaaw ñoo gër xërëm ñoo gër xërëm ya xare jàmbaar ya xon ya daw ñu toj dal ya toj ñu toj dal ya ñu toj dal ya jëm yéefar ya laaw sayyidina Muhammad tuxal yoon yu bon ya saxal islaam ba diine ji law saxal fi ay farataak ay sunna ya laaw ku leen xamul na ma jox noppam te diglu ma malim jëy sun wa day sun waay sun xiila xiila ya laaw tolala moo ñetti téeméer ak fukk ak lu toppal juróom nit mbaa ñenent cant yàllaaw sayyidina muhammad su dibee la rasulullahi woote badar bisub dibee la rasulullahi woote badar ñu takk xas la ca ngoon nga bis bis ba yàllaaw guddi keroog la rasulullah bég la ba xëx mboolem saaba ya bég bay sant bay sakku yàllaaw sidna muhammad bur yàlla ne sàkkuloon misuloon ca gaaya weyoon to dootu sakkati misloom misloom woon elaaw yonen gàttul guddul xeesul ñuulul yaram war a tax cëram yëpp mat sëkk buy doxsul la moom ndaamawul deful am njool rëyul li fatax dooxul wagul settaxul yonen sagul fa yallaaw xayri kul la sunoojul gangul teyeel ya sewul kaloor ya papa yewul moo jonne yallaaw moo jëkka ab taxawaay kenn ñenentu xasab reen junix jaam ñamal yàllaam la yallaaw ajaalu yallaaw ci ñun ma ko dar ak tuñu ak mu ñaay ba yalaaw mu ñaay ba day saf melax buy gaf ci xiinu marax reen ja gàcceel na lampi gaay si yalaaw xam bay wandeelu bay saf weeru ba dirin yëddin ndoxum bañag maak alak baatam ga yàllaaw yee nanu sëq ya ànd ak njañ nga faf di melax nga xam yu ratax yaag leeraay yàllaaw boppam bu mburngulu baag noppam yu rëy yaka sax gëttam yamuy walbati lam sal sayyiduna muhammad fa yàllaaw nu rukk bakkan gane fu ne saf na daay li wurus sigim bu njëkk ba Abbaas laaw diggante yaari wagan yaa xaatimam ba ñu taf ca diggu ndoddam muy saf tampe laaw su feem yu njëkk ya ak jën xam yu yaatu ya ak kajoor yu taliyaa kalooram yooya yàlla wu doxiin wu jëkk wa ak daagam la temp ma woon doxiinu ramatu lay dox bir na yàlla waxin wu dégg wa ak baatam bu neex ba mu yor làmmiñ wu gàtt wa ak tellam ga yàlla sayyidina Muhammad moom leebul barul datomul nasul darul taxuloon baatam loxut sewul senjul fayalaaw digam lu jëkk la ci ndigal tamaam la mu yor luppam yu jekk ya ak yu yalaaw loxoom yu jekk ya ak yu sew ya ca weem yu xonq ya koy lewi yalaaw moo ne xubam ku nuyoog yonnen